dañuy daal waaw xoolal miniature laa bëgg waaw miniature laa bëgg

Sëñ Fallou defar. Sëñ Fallou defar. bilaay ay waay du ma ko bàyyi jërëjëf Sëñ Fallou Sëriñ Fallu sëy Fallu bilaa képp ku ma yaakaar ëllëg kenn du la laaj say ay xaritu yàlla bàyyi leen sëy Fallu bilaa képp ku ma yaakaar ëllëg kenn du la laaj say ay xaritu yàlla Sëñ Fallu defar. Sëñ Fallu defar. Sëñ Fallu defar. bilaay ay waay du ma ko bàyyi jërëjëf Seex Fallu mooy borom juge jërëjëf sëñ Fallou wax na mooy borom juge ay sëñ Abdoulaye

jono jom nga bàyyi aaju ma jono la maam bilaay akaya bi bana bi say waaw waaw ku ko gëm ala fa takaba akaya bi akaya akaya bi ba wi ko teeru war lil wahi de kulil waan borom bi kañ la borom kër bay laay mooy di dikkiree mottali sama mottali sama moo ni xajal fii si bàmbeeli may ñu xewal si daw si kaw saraba wan di sanguy naan ba muy tëkkeelu war lil way dekku lil waxaan waxaan ku gëm ku gëm ku gëm waa du am ba diwaan boo di kañ leen borom ngir bi bàyyi laay mooy di dikki réer manteli sama manteli sama moo ni xajar fii si bàmmeeli may ñu xewal ci biir si daw si kaw saraba wan bi sanguy naan Jangan, jangan. Jangan, jangan.

kenn du la laaj say ayib ay dugg yàlla kenn du la laaj say ayib ay dugg yàlla